mbokki Mbour bu yàlla defee ma cinquième président de la République du Sénégal Je n'ai nga xam ñoo ngi quitté Cody qui di quitté échoué à Mbou. jeunes yooyu naanu xam ni bu boobaa li ñuy wuti bitim réew dans am parce que on a les ressources halieutiques qu'il faut on a toutes les ressources naturelles qu'il faut Sénégal yàlla def na on a notre territoire maritime qui est beaucoup plus étendu que notre territoire terrestre wante boo demee ba géej gi di gën a jariñ ñeneen ñi ñi nga xam ni ñoo waroon jariñoo géej gi gisatuñu seen bopp loolu lu ñuy corriger le bu ñu yàlla mayee ndam ñu leen di gërëm di leen sant wasalaam ne à très bientôt ma bëgg ngeen vous bu mon frère ma Loum Bataar yàlla boole nañu tamit fas yéene Sénégal et accepter avec beaucoup de plaisir son adhésion dans le parti et dans la coalition de Fall 2024 et nous madame responsable départemental des femmes bu parti mais Fatick dafa donne un département important te li xaw son économie Ou alors là mais collègues, jàngoroy Sénégal dafa massé ci biir Sénégal amul fumu touché wu mais limay jël comme engagement moy bu Yalla défé buñu wagné xobi sénégalais yi def ma confiance xam leen ni dinaa changé wax yéen fuma jëm yéen ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne ma bësin